nuyu oh, di leen ziar yéen ñi ci France Sport euh, ñu profité ci tabaski gi di leen baalu àq di wax ngeen baal ñu bu baax a baax euh, di leen ci ñaanal jàmm euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci France Sport yéen ñuy dooleel ba suñu compte YouTube mën a yegg ci benn dayo bi tey nag ñu war a ñëw ci Malick bi nga xam ne international sénégalais la bu nekk tamit conseil allemagne mën naa fool allemand mën a fool Sénégal ñu gis ne tabaski gi mi nga feete fi nga xam ne mooy Sénégal ak nu ñu maa def ba mu ñëw Sénégal football mais laataa loolu dañuy wax yéen ñi kat ci page bi la ngeen abonné te ngeen bës ko notification bi pour ngeen am suñu vidéo au temps réel fii ci Lomo Sport. sama gars yi Malick Thiaw ngoog Sénégal la julli see julli gi nga xam ne mooy julli tabaski saafanteeki mbokkam ay frère am ay sœur ay nijaayam ay compagnon mu nekk loo xam ne franchement ñëpp ci biir te ñëpp ñoo ko rafetlu lii nag benn message fort la pour man. boo xam ne dafay jëm ci Aliou Cissé ak staff Sénégal ak dirigeant yi kii di Malick Thiaw gëm naa suñu waxee moom bëñ ca football Sénégal ndax gëm na culture bi ñëw na julli see fi tabaski sol yëre olof comme ni ko yi defee fatawu mu nekk loo xam ne lu rafet la mu defee ko ci jumaa yi kon loolu nag day xam ne ne gars yi bu ñu defee tuuti liggéey gëm nañ ne Malick Thiaw Coupe d'Afrique bi ñu jëm dana sol mooy Sénégal boo ko tegalee projet bu leer ndax xale boo xam ne ku man la mi def la ku man football la te Sénégal dina ko soxla ndax avenir la ndax xale bu ndaw la te franchement dayo bi am ak xadar bi ak expérience bi franchement day jaaxal képp koo xam ne yaa ngi suivre football kon Malick Thiaw ñi ngi bég bu baax ci li nga ñëwee Sénégal feetee fi jullu korité gi yi jullu tabaski gi ngeen abonné ngeen partagé merci beaucoup am ngeen jaajëf